dunyaa ngi gaay ku nekk bëgg jiitu te ku jiitu ku ne doo xel ña nga jiitu dunyaa ngi gaay ku nekk bëgg jiitu te ku jiitu ku ne doo xel ña jiitu ku jiitu ku ne war nay xalaat gaayu mu jiital te xam ni ëllëg des na la yoo axu ña mu jiital ab jiit du rek jëfee mbaa na la soob ndax yàlla mooy tànn ab jiite moo koy def ko ko soob ndax yàlla mooy tànn am njiite moo koy def ko ko soob nga layeen gaa jiitu xam leen ni nguur yëpp dina jeex nguurug suñ borom gi moom mi sàkk njiit rekk moo dul jeex nga layeen gaa jiitu xam leen ni nguur yëpp dina jeex nguurug suñ boroom gi moom mi sàkk njiit rekk moo dul jeex